fas yéene yëkkati kàddu yu tuuti ci thème boo xam ne bu yaatu la jëmale ko ci fi nga xam ne fi lañ Cheikh Ibrahima jaar ci mbiru développement tey ñu am rek ci mbiru mbay bi mu ganee àddina tey ba lam fa am matul at mu dem saam ca réewu Gàmbi boori kawur foofu la njëkk a téye sox-sox foofu la njëkk téye liggéeyukaay nekk ci tool yi mottalee ko kursi kon mbay jàng na ko ndax waa wu góor El Hadj Abdoulaye Niass ci rapport yi nga xam ne jëlee nañ ko ci tubaab yi wax nañ ne ci at yi njëkk ci dix-neuvième siècle mooy ki nga xam ne moo ëppoon lu muy bay ci Sénégal bi Sénégal ak Gambie bu ngeen ko boole moom Cheikh Ibrahima topp tànk waajuram daan bay ndax wax nañ moom ne li tax muy bay mooy benn dana bay ngir am lum dundee ak lum dundalee njabootam ak ay mbokk dinañ bay lu demee ni ki witteel ngir am luñ defalee ay yére yére yombuloo daana bay gerte euh, mbayam gerte mi dafa am lu ci nekk ndax tubaab yi biñ ko indee dañ ko teg ci une double contrainte administrative et fiscale maanaam waxuñ nit ñi forcément da ngeen koy bay mais xamal na leen ne da ngeen war a fay impôt xaalis te pour nga am xaalis il faut nga bay kon mbay gàtt li ci njëkkoon moo doon musli ci musibaam tubaab daañu bay également ngir moom seen bopp ndax nawet dund daana jafe te li olof di wax ku amul sa sanqal amul sa sutura fu la tubaab bi lebalay dund dana am loo xam ne dina la ko teg dina metti ci yow kon du ci mbay rekk wante motli na ko ci daan toppatoo li ñuy wax mbiru càmm loolu lum mu daan taxawal li mu njëkk a bay ci li ñu jàpp mooy fii ci Kossy Mbiteyeen ñu koy wax Kossy Baye fi la njëkk a amee toolu boppam wante ku ci amoon xarala la ak xalaat ndax ci gannaaw kër ga daana fa bay ay légumes li daan wax tóor kër woo xam ne soxna yi ñoo ko daan jiite euh, ci boori waalo fi toolam jëkk a feeñee moom sëriñ bi moo doon kër makaan ji ndayeen ngéyeen ngéyeen sañ ci ngéyeen euh, mi ci penku dëkk boobu sax amatul léegi ak xuru gumb fële ci boori Taïba foofu dinaa fi taxaw ci toolu kër makaan ji bi nga xam ne mi ngi nekkoon ci loxooy sëriñ usmaan yaay foofu la njëkk dajale koppar yi nga xam ne moo tax mu dem màkk 1936 1937 kon mun nañ wax ne li mu demee màkk daf ko bay euh, fii ci Kaolack li tax mew ñu rek wala fu nekk daana fa bay ci dàgg aali boori kawoon amoon na fa ay tool emuloon foofu mbayam ceeb mi amoon na tool Richard Toll amoon na toolu ceeb ngayeen ñaare am na documentaire buy jàll ñu def actualité sénégalaise def deux points le Sine Saloum ñi ngi ko filmé ngayeen ci toolu ceeb bu Baye Niass su ngeen seetloo da ci gis ay kilifa yu bëri yu nekk ci région bi daañ ci fay wante moom sëriñ bi euh, bi nga xamee dafa jublu ci mbayum ceeb te saalum saalum xamuñ ko dafa dem indi benn taalibeem bu ñuy wax Omar Diatta ñu gën koo xam ci turu Omar Joola moo dénkoon mbayam ceeb mi kon fu mu day seet ci ko man mu indi ko daañ ci ñëw ci kanam euh, mbiru légume fi nga xam ne tey mooy marché Médina ab tool la woon ay màngoo ki darka sa nekkoon ca mu jënd ko ci Maba Ndiaye mujj gi am na ci commandant bi nekkoon Kaolack suufu saam egg ci ba fi nga xam ne tey Serigne Omar foofu la def jumaam ji ñu daan ko wax les jardins maraîchers de Kaolack suñu bàyyi Cheikh Ndaw nga xam ne liggéeyam mi ngi jëm ci statistique wax nañu diggante Ndorong ak Médina toolu dër yi ak teen yi nit ñi daan naan sëriñ bi gasoon na fi lu dem ci téeméeri teen ak fukk loolu da di won importance bi xam ne teel na ko jox mbay wante euh, lu ci nekk rek dafa war a dëppoo ak jamono am na lu mu jàngee Sénégal wante bu muy génnee bitim réew jàng na fa lu bëri Chine atta ba fa demee seet na mbay ma nañ koy doxalee booba la ñëw xam ne benn traite mënut am réew mu nekkoon kon il faut ñuy di bay lu bëri di am traite yu bëri euh, modernisation boobu mi ngi ko commencé tey ba jàngal nañ fi leen ne moomeel dañ ko war a bi nga xamee ni waxtaan na ak waa Taïba kër Amaloka ya euh, euh, kër Marassa ak waa kër Abibu mu am na ci nguur gi six cent hectares mooy li ñuy wax toolu kër ayre bi mu xamal ni na tool boobu dañ ko def pour jàngal nit ñi ci atum comme que dafa war a indi ay tracteur ay machines yu bees moo waraloon ci avril 1951 ñu doon guddi ëkk yi te boo demee ci Saalum dañuy wax ne la at moomu mooy atom guddi ëkk wante mu indi fa ay tracteur jël ay techniciens yoo xam ne ñi mi ngi leen jëlee dakaar ñii mi ngi leen jëlee côté Thiès indi leen fa ñu amee tracteur yi di jublu ci liggéey boobu euh, amul ci gerte ak dugub rekk mais defoon na fa ab tool boo xam ne ay màngo ay guyaab daanaka meññeen yëpp daje woon na fa 1951 ba tey gii ma wax ak yéen am na lu dem ci ñaar ci garab ak nangam yoo xam ne des nañ fa wante ba muy defar boobu ah, dafa woo taalibe mu xaaj ko 600 hectares yi mu def ko ñetti tool ñetti sas benn mu jox ko Baye Cheikh Omar Touré benn mu la benn mu jox ko beneen mu xadamam Baye Mbaye Niass benn bi mu jox ko Baye Cheikh Ousseynou Niang euh, ñett ñooñu mooy ñi nga xam ne ñoo jiite woon mbuddim ëkk mooy ca Taïba ca atum 1951 euh, ca tool boobu non seulement mbay ma mu nga foon wante nekkoon na barab boo xam ne taalibe yi daanañ fa daje sëriñ bi daana fa jàngale daana fa joxe wirdo daana fa tuubal ni ndax su nit ñi bayaan ba wàcc toujours day wax am ñu bëgg a dugg ci diine ji loolu li muy won mooy am na ñoo xam ne nekkuñu ay taalibeem daanañ fa ñëw te li ma ci gën a frappé mooy benn foto boo xam ne moom ak Baye Seet Njaay ki nga xam ne moo doon muqaddamu sëñ Basiru ci këroom ba photo bi nga xam ne ñu ngi ko photo ci tool boobu li muy wane mooy nekkul ay taalibe dafa daje mais dafa dajale ay jullit yu bari te seetu ay tarix aussi kilifa yu bëri yoo xam ne ay mag lañ buñ ko seet si waat daan indi ca tool bi am na benn at indi na fa ay américain ñoo xam ne dañu ñëwoon seet ni ñuy bayee ba ñuy dem ñu ñaan sëriñ bi benn sox-sox sox-sox xam naa ne xale yi duñ ko xam sëriñ bi ne taalibe yi ku ma ci mën a may sox-sox ñu ne ko jëlal sox-soxu euh, Bakar Amine bu sañ ci caamen mooy sox-sox bi gën a rafet ci tool bi bàyyi daal di ko jël jox ko karo américain loolu day wane ne du complexe parce que ab sox-sox nga jox ko karo américain li nga am rek nga mën a joxe te dangay joxe loo xam ne lii day fàttali sa euh, culture moom sëriñ bi euh, ci mbiru tool boobu li wane encore xeet yu bëri daje nañ ndax saalum saalum ya fa ak jolof jolof ya fa nekkoon am na ay jola am na ay awsa am na ay musi ñu bëree bëri teew na fa ce qui fait que Taïba dafa nekkoon exemple miniature intégration bi nga xam ne sànq Amadou Boukar mi ngi koy wax mbiru euh, Euh, yar ju timitam noonu la ci sëriñ bi taxawal taxaw na ci mais li nga xam ne daana ko jëlee ci jur yi surtout meew mi ngoon gu jot bàjjen Faati Ibra wax nañu ne daana jël wàllu hôpital yóbbul ko parce que mu ne ko am na ay malade yu fa nekk ñooñu dañoo néew doole mbay mi ci modernisation liñ ci jàpp rek mooy emul ci bay wante organiser ñi nga xam ne ñu ngi bay moo taxoon 1947 mu créé coopérative agricole baykat yi di fa daje di waxtaan seen jiw seen gerte ak di dimbalante ndax amoon na moom daana lépp xaalis di ko dimbalee ñi nga xam ne bëggoon nañoo bay coopérative ba tey mooy kër gi nga xam ne mooy këram gi nekk fii lew na indi woon na fa révolution technique njëkk fa dugal ay semoir ay tracteur ay pulvérisateur mais également mu def am magasin loolu war nañ ko xalaat. waxoon na ko 1965 bi mu ñëwee Taïba boobu ñun ñu ngi nekk école ñooy ñi nga xam ne ñoo ko tertu woon woyoon hymne national moo nekk woon sëriñ bi bay nga gerte bay nga puloo bay nga euh, mboq jaxat ba lim lépp ko li ñuy bay Sénégal yëpp bay nga ko ba mu des huitième. mu teg ci ne ko yaakaar naa déwén da ngeen bay huitième booba lañ commencé dugal huitième foofu ci côté Taïba wante ci ay toolam ci benn téere boo xam ne Amar Samb ki newoon directeur IFAN moo ko bind lan la wax mu ne ci Sine Saloum maanaam boo dajalee région Kaolack région Kaffrine ak région Fatick moo Amar Samb wax na ne sëriñ bi am amoon na fi ñaar téeméeri tool ak juróom benn fukk ak ñeent bon ci gàttal sëriñ bi dundam yëpp jàngale ak liggéey ci la ñu daan woo daana bay pour mu wax ne du lu am wante dafa bëgg taalibe yi bay ni bayee ndax am na benn at mu dem màkk buur Faysal jox ko 30 millions am ku ne ko soo ma ko joxee ma def ko usine yoo xam ne dana la mën a kii mu ne ko non lu ma am jullit ñoo ko moom lu ma am laaj ko yàlla foofu la wax ne li ma am ci sama tukki bi mënu ko am tool bi mais tool bi moo ma gënal ndax dana tax ñu liggéey ñàkk jëriñu dana tax jullit yi di saafante maa ngi leen di leen sant asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatuh